ñun ñun liggéeyuñu ba heure bi pour ñuy reporter ay élections présidentielles présidentielle musul am Sénégal la loi la loi l'interdit oui à six mois des élections que ce soit la CEDEAO wala l'UEMOA ak les à six mois des élections mm-hmm. personne ne peut reporter une élection sauf sauf amul sauf sauf consensus non non non du am consensus acteurs yi mun waaw mënta nekk mënta nekk fii consensus du fi am. leneen du fi am parce que ñëpp dem nañu liggéey passé yow gis nga débat yi fii ni muy demee bu ñuy wax dialogue. dialogue da moo ko wax ci opposant non dialogue laa wax bu ñu naan dialogue dialogue da ngay gis benn group ñooy dem lu ñu validé ñu ni engagé na ñëpp mais dialogue bokkul ak report élection report élection c'est tout autre mais report c'est tout autre loolu ñun moom acteurs yëpp bu ñu décidé woon report report day am biraam ñun moom xoolal ñun ak keneen ko épris de xanaa ku bëgg ñu vaar la wala leneen loolu xalaatuñ ko ñun déggoo xalaatuñu ko te du am biraama ñun xoolal kon ñu tay la suñu bakkan ñun déggoo ma de parce que lu ñu mayul Abdoulaye Wade en 2012 duñ ko may keneen keneen du ko am te Macky Sall la xam na ko loolu moo tax mu reculer pour le troisième mandat xam nga xamoon na ni moom bu naroon xuus troisième mandat ñu xuus ci kawam mu bàyyi troisième mandat mënul nekk gis nga am na yoo xam ne ni xoolal c'est fini c'est verrouillé dans ce pays gis nga ay mandat c'est verrouillé dootul amati ay report élection présidentielle c'est verrouillé dootul amati kenn mënu ci dara président ci boppam moo